salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa regroupement des acteurs du secteur des industries agroalimentaires de Touba ñu gën ko ràññee ci Raziat ni ñu ko doon amalee at bu nekk ren ji wéyal nañ ko dem ziara ji Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides yóbbul ko quantité bu tàkku ci diwlin ngir màggal Tuuba bi ca booba soxna maam Xari Mbàkke moom Serigne Mourtada ak ñamu àndal si bureau bi ñoo teewoon xalif bi doon lu mu rafetlu ñaanal leen ngir ñu mën a wéy liggéey bi

andil ko suñu àddiyee ci màggal gi nga xam ne moom lañ dëgmal andi nañ fi lu mat euh, junni litre diwlin euh, moom lañ fi indi ak suñu enveloppe. waaw xam nga àddiyee moom euh, dañoo baaxoowul sax di ko di ko di ko siiwal waaye jàpp nañ ne am na kilifa yoo xam ne danañu dem yóbbu leen suñu àddiyee ci màggal gi ci wàllu gi ñu yëngatu muy wàllu dëwlinu rasiat gi. xam nga délégation bi jàpp nañ ne ñu takku lañ ku mel ne Ousmane Diakhaté ñëwoon na ak euh, membre fondateur u Raziyaat yëpp euh, ziyaare nañu sëñ bi euh, leeral nañ ko liggéey bi ak fiñ ci toll leeral nañ ko itam appel bi nga xam ne président Macky Sall def na ko ñu dégg ko ci tournée économique yu Kaolack bi déggaat ko démb ci conseil des ministre bi mu xam la ne mi ngi woo le ministre du commerce ministre de l'industrie ak ministère des finance ngir ñu waxtaan ak huiliers Sénégal yi ba campagne arachide bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñu mën a jël gerte gi nal ko ci biir réew mi raffiné ko ci réew mi doomi réew mi liggéey ci euh, ñu consommé ko ndax président moom ku nekk xam na ne mbay dundee la wax kon loolu tam leeral nañ ko Serigne Touba Serigne Mountakha di ko wax ngir mu ñaanal ñu ndax xam nañ ne secteur u gerte gi secteur bu am solo la ci Touba. rafet lu taxawaayu njiitu réew mi ba lépp lu nu béyee si dëkk bi ñu mën ko exploité si dëkk bi lu nu mel jàpp na ni daal mooy wareef bi dina tax. chômage bi wàññeeku mais également production bi gën a yokku yokk tamit ci wàll koom si biir réew mi. ndax jàpp nañ ne président appel boobu ministre yi nga xam ne ñoom la concerné danañ ko dégg ba ñu mën a ànd ak ñoom liggéey ci campagne bi nga xam ne moom la jëm muy 2020 2021. campagne bi passé moom amoon na ay rëq-rëq ndax ku nekk xam ne ne gerte amoon na waaye dañ ko exporté te li may faral di wax rek matière première kenn du ko exporté matière première dañ koy bàyyi ci biir ko. waaye euh, développement mënuñ ko wax te créé wuñ ay emploi te création emploi industrie yi ñoo ko mën a def te bu ñu importer exporter matière première bi importer diwlin lool dañuy dooleel les industriels yi nga xam ne ñoo nekk ci sous région bi waaye du ñu dooleel industriel lu réew mi ndax réew mi moom gerte la ñu am kon jàpp naa ne li président wax euh, mooy ñu dooleel industriel lu réew mi doomi créer ay emploi xale yi liggéey loolu la président de la république Macky Sall bëgg ah lancé na bi ñoo ngi déglu ministre yi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 هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر